acat ñoo ngi ci premier combat digante jasi pol ak Mignane mo ngeembo ngeembu ngemboo ngembulu jasi mo ngeembo ngeembu lu ñuul si Malbudaay lay xewé 20 octobre 2024 ñoo ngi bëggé amateur yi ak amatrice ba képp kuy baaxoo di bëggé bu tafess aimé vidéo bi nga partager ko ñi abonné gu nañu profité abonné mu gën a dooleel base bi ñu mun leen toppal làmb ji waaw waaw aca alaaji maam borom Espagne le petit frère de Sékou Diouf maa ngi koy bëggee di koy siyaar ba Asu Booy waaye kenn Malick Diouf waaye di bëggee sama grand nesta borom baasul waaw waaw laate fay borom Janjaay Fatick ana Pape Siga Séri Florence Pape Borom Jongolor Jacques Diouf. aca ñu déglu combat bi ba xam bëgg fan lay féete diggante Mignane bu Palmarin Mignane moo jiital pied droite Diassi jiital pied gauche Diassi cokkaas na ko waaye Mignane bañ na. <laughs> ñu ñaan jël na avertissement jëlal ma Bellingham cey Bellingham oo mi